rahmatullah waaw ñu ngi fi tey ba ci journée xasida bi rek ci Touba Cordoba di dox doxu jàmm bi bokk ci programme bi wax dëgg lii dafay dafay firndeel loo xam Serigne Touba ñu ngi wax bu ko tubaab yi tuumaal mu ne inni ujahidu bi laxoon bi wattuqa ndeysaan wax jooju rek lay doxu jàmm la dox boo xamante ni ñu ngi jàng ay xasida ay sëti Serigne Touba teew fii ñu dende ak benn kilifa boo xamante ni bokk na ci njabootam Serigne bi ñu ngi lay ziar bu baax di la wax euh, tey bis la boo xamante ne bis bu réy la ci ñun ndax mi ngi doon première édition fii ci Argentine mooy bis moo xam ne dañ koy dañ ko jagleel xasida yi boole ko dox ci mbedd Argentine di jàng xasida wax dëgg muy lu mag loo xamante ni euh, bu ñu delluwaat delluwaatee ci ginnaaw rek day firndeel waxi Serigne Touba yëpp day firndeel ne inni u xaatibu nasara turran fi ardihim li maliki mu tarra kon wax jooju dafay dellusiwaat kon ñu lay tàllal suñu micro rek di la wax ne euh, yow ci njabootu Serigne bi nga toll ci ci nga bokk tey nan nga dundee bis boobu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf maa ngi am mbégte ak kontaante di gërëm suñu borom subhaanahu wa taala ci tawféexal gi ñu tawféexal ñu fekkee journée bi di ñaan suñu borom ñu fekke ko ay déwén yu baree baree bare ndax euh, liggéeyal suñ Tuubaa rek moo wóor rawatina ñun taalibi suñ Tuubaa yi ndax lépp lu nekk ci yoon wi taalibi suñ Tuubaa yi ñoo ko fi def kon taalibi suñ Tuubaa yi amuñu seen fay ñu ngi ñaan ci baaxul suñu borom subhaanahu wa taala fay leen ndax lu kawee njortu la lu lu rafet la lu dal xel la bu ñëwee fekk leen ngeen organisé bi journée xasida te lépp sëñ Tuubaa la rek nañ santaat bu baax di gërëmaat sëñ Tuubaa baax a baax di amaan mbégtewaat bu baax ak kontaante ndax xol bee sedd bu baax am na lu ma mën a wax waaye yàlla nañ leen suñ borom subhaanahu wa taala fay sëñ Tuubaa nangul ñu suñu liggéey ci barkeb Sëriñ Tuubaa jërëjëf jërëjëf jërëjëf sant bu baax a baax ci yéen it waa Cordoba ñu jël sëñ Pape Sada ak suñu jëli taxawaay bi rafet na lool di ngeen teertoo mbokk taalibe yi rafet na seen xol seet bu baax a baax yàlla doon ñu taxaw doon ñu dimbali gën xam ne lu nit loolu rek solo eh, lii itam lu am solo dana fàttawaat ne sëñ Tuubaa moom la paix et la solidarité maanaam li mu wane mooy loxoy seet wicc yoo xam ne jàmm ak dimbalante te loolu njaboot gépp ci ne li mu waxit ne li mu waxit ne li mu nekk li mu bëgg mu nekk ko ak yéen yakun maa naas jamii'an dahraka kamaa takun an yakun maaka na ngeen fexe di nekk ak nit ñi ni ngeen bëgg ñu nekk ko ak yéen loolu nag yëmut ci jullit kese yëmut taal bi kese waaye nasaraan suñu fekk ci réew mi sax nañ fexe sàmm suñu diggante ak ñoom muy jox ñu seen i xàq di rafetal seen diggante ak ñoom ak suñu diggante ak ñoom di maslaa ak ñoom. te xam ne loolu la ñu sëriñ bi digal muy ay ak ay teggin bu ñu jógee fii tamit fas yéene yegg ci barab bu ngeen xam ne fa ngeen ñu dalal fas yéene jàng xasaayidu sëriñ bi eh, ci jàngin wu sell ak alxuraanu karim di ko defal lépp sëñ mag bi addiya jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Yankhoba waaw ñu feggoo ak suñu jëriñ Serigne Bamba Niang di ko liggéeyam ràññeeku fii ci wax dëgg bu jàmbaar la ñu koo xamante ne wax dëgg léppam Serigne Saliou la liggéeyam feeñ na ñëpp ràññee nañ ko fii ci Argentine euh, surtout ci fédération bi nga xamante moo boolee mbooleem province yi nekk ci Argentine wax dëgg xam naa ne moom fi mu toll nii moom xol bi dafa sedd waaw ndax euh, gis naa ko sànq mu yëngu ndax xasida yi ñu yëngu ñu yëkkati waaw koo xamante moom léppam sëriñ bi la léppam xasida yi la xam naa danañ ko jox rek euh, tàllal ko suñu micro mu wax ay yëg-yëgam ci bis bi sëriñ Bamba. Ah, salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Soyebu. ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ziar bu baax xanaa di jiital ay ñaan ci ziar bi rek di ñaanal sëñ Cheikh Ahmadou Makhtar Mbacke ñu yàgg fi lool te ànd ak wér li ko noonu di ñaanal sëñ sëñu ci yoon sëñ Cheikh Saliou Mbacke di ko ñaanal mu gën a yàgg gën a wér at mboolem njabootu sëriñ Saliou gi yëpp waaw xanaa rek di di di am mbégte di am mbégte walaay la sim sañu xol daa fees ndax. Eh, ni mbir mi demee ni mbir mi demee rek xanaa jàngate ci nag lu bëree bëri ndax xëy na fa ñu tàmbale woon at fi ñu yegg say ji lu wute la walaay la waaye nag eh, xam nañ ni du du kenn ku du jëf seen Tuubaa waaye nag pas am solo la ci murit waaw boo gisee ñuy woote saa su ne ngir ñu daas sañu pas-pas yi mooy maanaam kattanu seen Tuubaa dafa xajul fenn kon na li ñuy bëgg rek mooy saa su ne lépp loo xam lu ñu namm la rek bëgg kaa dox walaay la sim nañ dox jëm ci te xam ni barki Cheikh Khadim pas-pasu kattanu Sëñ Tuubaa xajul ci lenn kon nag lu ñu bëgg te rek wallaay la si nañ ko naal te a dëmm yi te te te gën a defar suñu jëmm yi gën a bëgg Sëñ Tuubaa wóolu ko te fonk ko jéem a dox ci li muy digal barki Sëñ Tuubaa nañ leen jaamu yàlla ba dee liggéey Sëñ Tuubaa ba faatu loolu mooy mooy ndigal li barki Sëñ Saliou Mbacke jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf xam naa dañuy fegoo ak keneen suñu jëriñ boo xamante ni Serigne Jili Samb wax dëgg yàlla liggéeyam di ràññeeku lool fii ci Touba Argentine rawat na fii ci Touba Cordoba xam naa dinañ ko jox kàddu gi mu ni nu mu gisee bis bi sëriñ bi ñu lañ waaw asalaamaaleykum di ziara baax a baax sant sëñ Touba rek di sant mbooloo mi yëpp di xam ni lii moom sëñ Touba rek ko mën am na ci ñoo xam ne xaw ma kañ laa leen gën a gis waaye lépp sëriñ bi rek ko waral ngir ku nekk bàyyi ko ci ay gox ay yoo xam ni yu wute loolu te ñëpp ñu ngi ñëw rek teew ci bisub sëñ Tuubaa bi mu bisub xasida ñu def ni li nga xam ni mooy dox boo xam ni doxu cant la wane euh, mbégum sëriñ Tuubaa wane liggéeyam sëñ Tuubaa waaw kon nag lépp ñu sant rek di ñaanal ñëpp ñu day teg tawféex ak fépp fu ñu koy defee ci àdduna rek xam ni maanaam lépp ngir ngir ngir ngir ngir wane doole sëñ waaw comme li wax rek inni xaatibu nasaraatu raajooju yaakaar naa kon liggéey boobu feeñ na kon sant bu baax xam ni lépp daal Sëriñ Tuubaa la ndax fii moom fii ñu koy defee nii yaakaar naa ay junni junni at lii mus fee def waaw li fii wàcc ci alxuraan ak xasida lii yaakaar naa mus fee loolu day wane ni doole Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa fépp rek waaw waaw di ñaanal ñëpp rek taw feex lépp loo xamante ni jàng nañ ko fi xasida ak alxuraan yàlla na daje ci jullit ñëpp barke Sëñ Tuubaa bëgg nañ lool waaw di siyaare suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ ko seqal ñu waa Cordoba wax dëgg yàlla jàmmaar lañ di jiital suñu jëw bi Pape Sada ak suñ sooy boog ñoom Pape Diop ak ñëpp ak suñu mbokk yoo xamante ni dañ fee nekkul te ñoom Kouya Seck ñoom Malick Samb ñoom Khadim wax dëgg yàlla nekkuñu waaye seen xel seen xalaat seen doole lépp ñoom ñu ziar ñëpp di suñu mbokk ñoo xam ne mooy boo ne seen ziar jëw ñu ñàkkoo ba jëwriñu Argentine di ci tàngal sëñ Bamba ñaan ñu toflal di ziar ñëpp di ziar mbokk kilifa yëpp daal waaw di ñaanal mu yàgg lool waaw ba ñu mën koy defee at mu ne ñu koy def ci ci gox goxaat yëpp ci barke sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ Abdou Khadir jërëjëf kàddu naa ñu ngi toog ak suñu sëriñ suñu kilifa sëñ Mame Thierno di ko ràññeeku trop ci liggéey bi nga xamante ni Eh, fii ci Touba Argentine wax dëgg yàlla am eh, pas-pasam ak liggéeyam ku ne ràññee na ko fii ci liggéey bi suñu maam Thierno ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la teg ci micro waaw suñu soxna bi ah, ñu ngi lay ziar bu baax di di ziar sëñ Gora ak waa Touba ci Argentine gépp di rafetlu liggéey bu baax mi ngi liggéey macha allah ñu gis seen passé bu baax ba mu fi ñëwee boobu ba léegi waaye tey comme ni mu ko waxee léegi rek wax dëgg yàlla suñu xool daa fees fees lool macha allah ndax fii ñu ñëw tey. argent la waaye beneen dëkkal boo xam ne day 800 kilomètres ñoom la fii di yëkkati xajee suñ tubaay mbedd moo xam ne ay mètre mètre la ñu coupé ko ay waxtu di ko dox di màggal sëñ Tuubaa ko bu mu doy dara du doy kon ñun am nañu ñu sant sëñ Tuubaa naa rek naar moo fi andi xorom si te sëñ Tuubaa li ñu defal ci xaj bi dafa doy sëkk ndax dafa la ñu ñu diggante suñu loo xam ne maanaam bu ñu koy jàng ñu ngi tuubal yàlla ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi kon loolu rek dafa doy sëkk kon nan gën a fongar xas gën a jàppante gën a góorgóor te xam ne ñu am nañu kenn amul amul lu dul sëñ sama xol dafa fees sëñ Suwaybu bi bu ma sama yaram dafa daw fan yëpp ngelaw dama kontaan lool ñu ngi di ñaanal tamit liggéey bi ngeen dem ngeen am ci gën a ko seen jot wax dëgg yàlla dama sama xol ma wax dara ndax lii xol da cee sedd waaye ñaan rek bu ñu yombital boppam saa su ne waaw kon ñu ngi gën a xes day gën koo selaat xes day suñu borom moo ko ci defal loo xam ne mi ngi mi ngi ko defal jaas yi ñi nga xam ne ànd ak yonent bi sala kon xas bi mooy nga ne lépp doy na lépp kon nañ ci jàpp te gën a góorgóorlu xam li ñu fi andi wax dëgg yàlla bu kontaan nan lool lool ñu ngi kontaan bu baax a baax a boo ko bëggee boo ko bëggee baax ay tànkam te seen tubaab xas day mooy ay tànkam kon sant nañ lool kontaan lool mënuñu ñoo wax lool macha allah ñu ngi leen gërëm bu baax a baax di rafetlu seen liggéey di rafetlu Cordoba liggéey bi ñu def macha allah ndax ñu ngi njëkk a génne Cordoba andi ko fii tey kon nii nag lu ci ñëpp roy ci waa Cordoba liggéey bi rafet na macha allah jërëjëf sëñ Thierno. jërëjëf jërëjëf sëñ Mame Thierno jërëjëf kàddu na solo trop macha allah dégg nañ trop xam naa ñu ngi fii ak euh, suñu jëriñ Pape Sall jiite liggéey bi fii ci Touba Cordoba wax dëgg muy bis moo xamante ni dañ ñu ko joxee léegi ñoom nelawuñu wax dëgg seen ay yitteeg seen xalaat yëpp ci bis bi la ba wax dëgg xam naa ne fi ni toll moom xol bi sedd na lool waaye nag dana dana dana dana danañu dimbale rek sàllu ci ay kàddu. ñu ngi lay ziar baax akasa akasa salaamaaleykum wa rahmatulah xanaa di si sàccuwaat ay kàddu rek waaw ay kàddu yoo xam ne kàddu mbégte la. ay kàddu mbégte la te wax dëgg yàlla mbir mi mbir mi moom wax dëgg yàlla fi mu nekk nii doy na kéemaan waaw ñépp xam na ne mbiru Sëñ Tuubaa moom kanam rek la jëm te wax dëgg yàlla ñoo ngi ñoo ngi sant mbokk taaliba yi bu baax a baax di leen sant bu baax a baax wax dëgg yàlla man sama xol dafa fees ba ba wax barke Sëñ Tuubaa di sant bu baax a baax di sant borom Tuubaa bu wér waaw di sant sëñ Tuubaa bu wér a wér a wér di sant waa waa Argentine gi yëpp ak waa Brésil yëpp wax dëgg yàlla ñëpp ñëw nañu waaw ñëpp ñëw nañu si bis bi yàlla leen sëñ Tuubaa fay jërë ngeen jëf di sant sëñ sooy bi nga xam ni moom daanaka 15 jours ngi nii sax liggéeyul ndax bis bi kon nag li nga si def yëpp sa kattan sa doole yëpp yaa ngi la sëñ Tuubaa fa ba toujours na xas tamit ndeysaan di dox dox ba am solo euh, dox boo xamante ni doxu jàmm la. Euh, ñu fi jàng ay xasida ñu soxna yi nga xamante ne wax dëgg yàlla am ñoo ne ci dëkk bi di fi def liggéey bu rafet wax dëgg yàlla ci liggéey ku tedd ki waaw xam naa danañ ci tàllal suñu micro kenn ci soxna yi rek incha allah mu wax ñu nu mu gisee soxna si ñu lay ziar bu baax a baax euh, di la laaj rek noo def ba ñëw fii bi nga xamante moom la amal fii tey ci Touba Arona ni nga ko yëgee ak ni ko gisee xam naa ne xol yi moom sedd na. maa loolu xol yi sedd na guy suñu xol dafa sedd guy ngir Serigne Touba lii ñuy def lépp Serigne Touba tax ñu di ko def ndax bis bi day bis bu màgg ci ci ci ci euh, ci murit di bis bu mag màgg ci xasaayit moo tax ñu ñëw fi rek jóge ba capital ñëw ñëw fii ci ba ngir bégal bisu xasaayit bi niñ ko dundee daal noonu la lépp nag mi ngi fi berndeel yëpp a ngi fi dara manqué wul lépp a ngi fi suñu xool sedd na guy lépp Serigne Touba la rek Serigne Touba moom amul tànk ginnaaw yu kanam rek la am macha allah loolu de loolu moom wér na xam naa ñu ngi amaat ak suñu beneen soxna bu naan Soda Thiam incha allah dañ ko tàll suñu micro xam naa ne moom fi mu doon woon mënut wax xam naa ne xol bee sedd. <laughs> waaw salaamaaleykum suñu mbokk taalibe yi mbokk murid ñu ngi ziar ñëpp di kontaan ci bis bi journée xasaayid bi ma ko di sant Serigne Touba di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ñoo ngi fii ci Cordoba. di ñëw ci journée xasaayit sëñ Tuubaa bi di ñaan yàlla suñu borom lépp lu luñ fi ñaan yàlla na ko nangu ci batt sëñ Tuubaa Cheikh Ibra kontaan nañ trop mënuñoo wax lu bëri ji li jërëjëf jërëjëf. baax na jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, soxna eh, salaamaaleykum. maaleykum salaam yaa Abla Wolof. waaw dégg la Toté. na nga def. ça va ci lu nekk. hoy eh, un día muy importante para nosotros un día nosotros la hace para el libro de Cheikh Ahmad Bamba. ¿Cómo le sentís de provenir de ese ese día? Y para mí es muy importante porque comparto a la familia y Yehamadu es alguien muy grande. Mi marido es Nyan Yehamadu mi hijo Serin entonces me parece que pasa una cuestión familiar y de corazón. Así que estoy muy contenta y de compartirlo con muchas chicas que en Buenos Aires está bueno. waaw di leen sant bu baax a baax jërëjëf. jërëjëf waaw lépp lu fi rafet rek moom la lépp lu rafet rek waaw moom la moom moo liggéey liggéey bi macha allah bam bam ak si waaw ñu ngi ziar mbokk taalib yëpp wax dëgg yàlla am mbégte lool ci bis nga xamante ni tey dañu ko jagle lool muy Touba waa Touba Cordoba tey ku gis mbooloo mi ak xas dañuy yëkkati ngeen xam ne Serigne Touba ku yàlla nangu ab liggéeyam la ku yàlla fay la wax dëgg mbokk taalibam yëpp ngi fépp ci àdduna mais xoolal tey lii image yi tey xoolal dox yi ñuy dox ndeysaan di jaar ci digg mbedd Touba bi nga xamante ni ñoom ñoo notoon sëriñ bi ba pare euh, yóbbu ko sànq ko tey ñu ngi nii tey di dox ci seen digg mbedd euh, di di jàng ay xasira di ko yëkkati sëñ bi loolu loolu ku ku gàtt xel ku ne xam ne ne Serigne Touba yàlla yàlla nangu na ab liggéeyam yàlla nangu na ab liggéeyam wax dëgg tey moom bisu mbégte la dama dégg kontaan naa loolu war na sëñ Touba bi xëy na moo tax sax li war dëgg dëgg ci liggéey bi mën ma ko waaye lii ku ko gis rek sa xol dina sedd waaw ñu ngi ci ñaan daal lépp lu ci rek ak euh, def activité bu ñu def ñu ngi suñu tubaab nangul waaw ñu ko te defal ñu ay xéwal ba defal ñu xéwal yu bare bare ba may ñu kàttan buñ ci mën a liggéeyal tamit waaw dëgg gis la boo xamante ni daal tey bëgg nañ ci trop suñu kilifa yëpp ñu tey euh, ci suñu ginnaaw jiitu liggéey ba liggéey bi agsi fii macha allah bëgg nañ trop wax dëgg di sant waa Kordoba gépp waa ñu leen di sant Wario Quarto <laughs> waa Villa Maria Rio Tesoro Rio Segundo Cordoba capital macha allah seen liggéey rafet na rafet na di sant fédération argentine bi nga xamante ni wax dëgg euh, bu li amee rek ñoom la di ci jiital Serigne Sidi Serigne Sidi Mokhtar euh, suñu Cheikh Matilay ñu ngi ko bu baax a baax ndax xalaat yi yëpp ci moom la jógee macha allah. rafet na lool lool macha allah.